jërëjëf mbokki ami internet Zaret Vision mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen kontaanee comme ni ñu koy defee ak yéen saa su ne mbokk yi Fallou Tall ak Dio ñu leen koy jox saa su ne di bëgg leen te ak yéen mbokk yi tey ñu ngi fii Géejawaay toog ak ki nga xam ne moom mooy Maguette Seck di ndaanaan sekk bu buñ ko waxee xel yëpp dina dem ci li nga xam ne moom lay def muy làmb mais tey dañ ko fekk si fii yi nga xam ne tey Géejawaay ñu ngi fi doon amal match de foot mu bokk ci coach yi Maguette Seck nag xaw ma mooy Dere xaw ma mooy Aliou waaye tàpp tuxu gis naa mu koy def ak lambatu milieu terrain day am botu ginnaw kon dama koy nuyu ñu laaj ko match bi rek parce que en ce moment match bi mi ngi daw Maguette ma ngi lay nuyu di la bëggee di la ziar. waaw maa lay ziar di la jox sa wàccuwaay di la jox sa di la wax dalal ak jam wa di la wax ne la match bi tay mom xam ko na egg na commencé ci ah, bismillahir rahmanir rahim egg ci alhamdulilahi rabbil alamin loolu la ñuy ñaan parce que match so gisé ñu taxawal ko bëgg ñepp doon benn motax wa di ñaan rek xam nga yàlla liñ ci bëgg yalla nako suñu borom def liñ ci mebet yalla nako suñu borom def te tamit xam nga <clears throat> yàlla na ubbiwaat yeneen opportunité yoo xamante ni xam nga lu ma la dinañ xam ne làmb ñun liñ ci bëgg du du du ay waxu kase quoi voilà géejawaay liñ ci bëgg tamit du ay waxu kase géejawaay ñoo war a mànkoo nekk benn ñëpp nekk ben ci loolu la ñu ñëpp di dox yàlla na ko yàlla def voilà noonu la fa demee. macha allah match mu mel ne en ce moment yéen a mën a 2-1 match bee ngi taw ay ñoom maaj maaj ñu ci biir gars yi bëri ñu ngi ci biir mu mel ne bii mooy seen deuxième match. waaw man laa bokk waaw football nañu mais man samay rakk ñoo fi nekk ak sama rakk sax moo dugal deuxième bii bi samay rakk fi nekk ak sumay jarbaat ak sumay gayen waaw ñoom ñoo fi nekk quoi moo tax faaw ñu ñëw rek jéem a cote équipe bi bëgg a gagné quoi noonu la fa demee waalo waru génn si tournoi bi parce que équipe waalo bu mag la dafa war a bokk ba final wala demi final voilà noonu la fa deme waaw. mu mel ne lii bëgg géejawaay doon benn moo tax ñu def ko parce que Ndiaga Sarr mu ngi fi Balla Gaye mi ngi ci Papa Kane mu ngi ci Lan Sané Mor Fadam école de lutte yi nekk Guédiawaye rek la ah. boole. waaw école de lutte yi ak éco euh, écurie yi ak école de lutte yëpp lañ boole def tournoi tournoi boo xam dañoo bëgg tournoi bi après su su suy jeex si li ma dégg ci wéyu béy nee nañ dañoo bëgg ñi gaañu woon yëpp ñu ñu ñu ñu ñu kii leen ñu naan leen hommage ñi nga xamante ne ay ancien mbër nekk nañ fi ñu décorer leen te loolu noonu lu rafet la quoi en plus tamit xam nga ñu bëgg supporter yëpp génn ñëw jàpp ci bis bi loolu lañ bëgg quoi noonu la fa demee. macha allah mais nag ñu ñëw ci li nga xam ne moom ngay dund muy làmb làmb temps yi gis nañ coow li am surtout sa ñaari rakk yoo xam ne ñu ngi ci làmbu muy Ada Fass Pokola coow li ñu am ba am ko ki nga xam ne moom mooy homme de bi ñu ko amal finalement Ada Fass yoon teg ko loxo ba nga déggee coow loolu Maguette Seck en tant que mbër nekk ci làmb ñoom ñu nekk ci làmb naka nga ko gisee. waaw loolu loolu bi ma ko déggee metti na ma mais après en plus man métti méttiwu ma quoi. Ada nit dafa war a dafa war a génn ci fii mu nekk quoi daf si war a juge quoi nit bu la àdduna bëggee làmb bëgg la am na foo xamante ni yow waruñu loo fa mën a séen gis nga làmb ñi si ñi ñi ci dëng ñoo ëpp ñi si jub mais sutura dafa baax quoi nit yaay suturaa sa bopp nit yaay valoriser sa bopp nit li nekk si yow yaa koy def sa bopp parce que ma xamal la benn affaire gis nga àdduna yàggul quoi léegi léegi da nga fiy jóge sa doom nekk fi wala keneen nekk fi wala keneen ñëw fi te amna lo xamanteni mi ngi ci net bi du mësa deñ wala du mësa deñ man lima gis dal moy mu défar togaayam xol ni mi def ëllëg yi bañ ko dal quoi mais nit mom isaamu lu wax nga fatu ben yoon baxna mais nga fatu fattuwaat mom du yagge ñu ne yaaw tay te warul démé non man sama gis-gis quoi wala sama gis-gis arafas Pakola ci la bok ño ànd wa ñom ñaar Pakola mi nga am bis bo xamanteni tay ji par exemple mom neubut rek moko ko dik Ada mi ngi bëgg bis boo xamante ni mi ngi yootu mbër yoo xamante ni kon moom nëbbatu rek moo ko war a jik ñu jéema a nekk nit quoi xam ni moom mooy loolu ko waaw. mais mais mais tey ñoom ñu nekk ci làmb mm. tey Ada Fass déggoon nañ coow mu dem soirée waali coow fa ak ki xam ne moom mooy maam Jogomaay mu ñëwaat retourné waat defaat lu mel ni te boobu ba léegi nit ñi ñi ngi wax est-ce bu yàggee duñ ne li muy def moom moo ko tey. léeg-léeg damay seetaan télé dégg ñu wax ay maam Jogomaay ay ay ay ay Ada Fass gi la. mais maa maam jogo maay ñàngu fi yooyu ñàngu quoi garaawu fi yooyu garaaw. ñoo koy garaaw non garaawu fi yooyu garaaw fii ku garaaw amu fi fii tapet amu fi mais histoire su ñëwee nañ xool nuñ ko fayee ñu fay ko mais ay kii dafa garaaw mooy dégg damay toog ci tiktok bi dégg kii dafa garaaw kii dafa ñàng yooyu garaaw amu fi fii garaaw amu fi xam nga lan mooy garaaw mun a nga am nga nga xam fi ngay teg sa tànk loolu mooy garaaw xam li ngay def loolu moo garaaw. te tamit maa ngi félicité sama rakk tey moo dugal mi ngi nii waaw di leen wax ni leen làmb na ko bàyyi xel incha allahu rabbi su may tekki jaaj yi damay fekk mu ñor xoom ma jox ko te su ñëwee lu ma pertoon ci làmb incha allahu rabbi dina ko dabb bu soobee yàlla waaw te ci loolu laa nekk ci loolu laay dox. isamlo di ñaanal sama doom tamit gedda saison renam nekk saison bu gën a dox di ñaanal képp koo xam yaa ngi igir waalu nekk fi yàlla may leen dam nga am combat yàlla may leen dam ko dëlit Balla Gaye ñëpp yàlla may leen dam mais di leen wax ne sama rakk mi ngi ci yoon mi ngi ñëw waaw ndax man ndax man ndax man xam naa ni bis bu lu nekk si man bis bu nekkee si man ndax di nañ ko dégg ci kàttanu yàlla waaw te loolu laa bëgg lépp complété nekk si moom voilà da man moom dama bëgg li ma perte si làmb moom mu bañ ko perte lu ma problème bu ma am si làmb moom mu bañ ko am dama bëgg su ñëwee rek lépp teew voilà te si kàttanu yàlla bu ñëwee lépp dina teew mais Maguette gars da dañuy gis ne ñu ne non Maguette est-ce jël ci booy am doole yi. Mhm. non yow man làmb moom booy yi ma benn booy wax dëgg yàlla booy buñ nangu woon a bëreeg man barke Serigne Saliou su déwénee ma tabax fii immeuble bu rëy bu booy nangu woon. posé yeneen booy yëpp woo nañ ma alburaax lañ ma woo booy yëpp booy yi ngay dégg nii ñu am combat nii ñëpp ku ci nekk woo nañ la ñu ne ma ne ñu ne damay yàq seen yoon baaxuma si barke alxuraanu karim. ci booy ay xale yu bu ngor lañ ma njëkk a woo mu dee bi. ah kii fëgala bu fëgala bu ngo moom mu delloo avance bi booy bi daan Alioune Seye junior tamit moom it mu delloo avance bi. Ibou Afia waaw Barke Seydina Mohamed. Ibou Afia du tapé. waaw yow man ngay waxal <laughs> man géem ñooñu rek laa mën a géem. bande bu dërkiis laa rek laa mën a géem. man nekkuma ci nekkuma si koñ bi. di xeex kenn wala ma nekk si koñ bi di jaay bande bande wala may këf yëfu jàmbur wala may non non mais soir bi sifflé mbër bu mu mën di doon soir bi sifflé su ma la tàllee sama loxo nga teg ko ci. barke Serigne Touba. macha allah mais fi làmb toll ñu gis leen yéen ngeen def jaloore ci làmb mm-hmm. te ba ngeen di nekk ci làmb dëgg. dundoo leen woon milieu dundoo woon leen mafia. mais léegi ñu gis ne booy yu mujjee ñëw dañoo jàpp ne ku ci dundul milieu wala dundoo mafia doo. gis nga ma xamal la nag loo xam ne ñu nekkoon ci làmb bu njëkk ñoo gën a nekk band ñu nekk si làmb nii. te wane wuñ ko woon nii te mosuñu ko wane gis nit yaay suturaal sa bopp. yow nga dem fenn ñu vidéo la nga tàggoog sa sago ñu vidéo la wala ñu def la dara ëllëg ñu dugal ko si net bi sa doom di gis lu ko jar ñun ñoo leen gis nga dama la làmb ji barke Serigne Touba bu nekkee cent quatre-vingts yu gën a garaaw ñoom Ada Fass ak Pokola ñu ngi si ni der noppi. te wane wuñ ko gis nga nit yaay suturaal sa bopp nit fi nga bëgg a egg yow yaa fay yóbbu sa bopp mais gis ñoom fi ñu nii dañuy perte li léegi du yàgg. parce que nit bu la yàlla cëralee da ngay cërale sa bopp ni ngay cëralee sa bopp mooy lépp looy def nga def ko sutura mais mais waru demee nii quoi man gisuma lii. est-ce que làmb mës am genre mbëri amu fi fan la fan nga ko mës gis booy yoo xamante ni dégguñu ndigal koo ci wax du la dégg xamuñu luñ xamuñu lu deeg lu dund loolu taxawul te barke Serigne Touba ñu leen gën a garaaw rek a nekk ci làmb ji te ànd ak seen mayen di joob lépp joobu mayen voilà noonu la fa demee. say rakk ban moo nga leen di dénk boo xam ne moom mooy sa dernier. waaw li may dénk mooy ñu gën a góor rek te xam ne àdduna moom yàggut quoi soo xoolee xam ni ñun ñu ñu ay mbërë fi nekkoon jugo fi ñun ñu nekk fi jugo fi nga war a xam ne àdduna méttiwul en même temps tamit di wax ni bépp mbër bu mu mën di doon lépp looy def def ci fulla ak fayda parce que suñ borom dafa bëgg nit ku am fulla am fayda waaw su fulla ak fayda lu mu duggul rek da du réussir quoi voilà man de li des sama carrière ak li des sama dunia fulla ak fayda laay doxe waaw te suma rakk bi ma yàlla jox ma mu ma bëgg mu doon champion tamit fulla ak fayda laa bëgg def ci moom su ma gisul ci moom fulla ak fayda bàyyi bàyyi ko bàyyi làmb man noonu laa dundee képp ku may àndal te amoo fulla moo fayda ma bàyyi la képp ku may àndal te gëmoo sa bopp ma bàyyi la man damaa gëm sam bopp voilà noon la fa demee voilà nekk mbër moo xamante ni yow xam nga ci làmb ku ma gis jox na ma cër parce que loolu maa ko liggéey si làmb waa làmb nekkuma ci di wax rek làmb damaa jëf daan ay mbër 29 combat la beure 7 défaites ben match nul 21 victoires ñu deuguer la daan man lamb du ay wax man waxuma dama jëf ba ñepp xam ma. wala non la fa démé di wax ni rek xam aduna àdduna méttiwul nañ gën gor góorgóorlu tournoi bi yàlla na si def jamm def ci moy lolu di wax ni boy man buñ ma nango jël. barke Seydina Muhammad rasulullahi billahi wallahi duma 1 an ma tabax fi lu ñepp di tek seen bët parce que man gunaas dekk gunaas xam. mais booy ay tapet la koo ci wax ku ci bëreeg man su méttee nga keneen du ñëw pour lan. mais à part booy ñu xaw a tolloo yow noonu xaw a nekk ci kaw soxla. bu ñëw baax na man làmb kenn rawuma ci. mais Maguette am na ñu soxla moom ñoo xam ne da leen di laaj. ñëpp laa bëgg ñëpp bañu ma kenn yaaw jaar sa bëgg naa nañ ma fay rek xam nga moom looloo ci gën a dee kon la bëgg bañu ma kenn moo baax si làmb. su bi passé gis naa nga mobilise indi doole ju bari. non <laughs> day gën a yokku nag. incha allah rabbi waa day gën a yokk en plus samit di wax ni tey match bi kontaan nañ quoi comme que commencé nañ si jàmm egg si jàmm alhamdulilah waaw te gis nañ ne am na ay tension mais teewul chaque jour rek ñëpp dañuy dal te xam ni loolu moom mooy sport quoi. làmb ji neex na match bi neex na rythme na jaar na yoon waa du nuyu fii ñu defee affaire bi muy euh, place saret di du nuyu boo yëpp ñu fi nekk di leen wax ne leen xam nga fii moom góorgóorlu lañ xam liggéey daan seen doole di leen ñaan rek yàlla na leen yàlla gën a may xel mu sell may leen wér ak wér la voilà loolu rek moo am solo quoi voilà. saison bi mi ngi waaj a ubbi Maguette la lay waajal gars saison mi ngi waaj a ubbi mais incha allah man lundi laay commencé entraînement yi parce que. si woon. si dem hivernal déedéet man dama doon dem géej rek football ñibbi si. lundi incha allah rabbi laay. déedéet mais lamb ci lamb maa tëj saison. bëri pare cinq mois. yaram bi soo ko ensonné di ko reet da ngay rek doo am doole. léegi dafa yàgg. non boobu yàggul de man ma bëre léegi dafa yàgg Balla Gaye Modou Lo samedi laa bëre ñu bëre dimanche. kon noppaloo une semaine pour man war nga dàpp une semaine déedéet. man damay noppal sama yaram mag laa paalaa lañ wax damaa bëgg su ma ci yabaat doole mu nekk doole bu feere. ndax yaram boo waaw yaram boo ko sonalee rek après boo ko bëggee liggéey loolu vif rek du ko mën a liggéey waaw mais yaram il faut que nga koy noppal di laaj tëdd nelaw maasew nekk defar yaram bi nga am boo bëggee wutaat da nga koy amaat. voilà noonu la fa dem waaw waaw waaw di bëggee ñëpp di encore di di féliciter Alioune Seye waaw Alioune Seye mooy seen deuxième course bi dégg naa nga moo nekkoon course bi Alioune moo nekkoon course bi ma ñëw mu jébbal ma équipe bi équipe bi ma ne un di ñuy daw di daw équipe bi dugal deux Alioune Seye bi Alioune Seye waaw nee ma ne ko booy man man tàmm naa li lu ma defar ñu jël ko équipe bi ñu dugalaat ko Alioune toogaat ma jugaat équipe bi dugalaat Alioune jugaat Alioune rek macha allah noonu la demee woon mbokk yi Guédiawaye wax naa lay sera famille noonu lay demee ñoom ñoo doon football ak waa Ndiaga Sarr waalo Ndiaga Sarr match bi jeex na waalo moom moo gagné 2-1 mbokk yi gis ngeen noonu la demee waaye da ngeen kàddu yi wax ci ay rakam ci Ada Fass ak ki nga xam ne moom mooy Pokola Balde mbokk yi Ada Fass yaag Balde am na ñoo xam ne ñu ngi ci làmb ñoo leen ëpp valeur am na ñoo xam ne ñu ci làmb ñoo leen ëpp coow am na ñoo xam ne ñu ngi ci làmb lu ñu def defoo leen ko ci làmb yéen defoo leen dara ci làmb kon am na loo xam ne bu ñu leen koy waxal dee leen ko bàyyi xel bu baax a baax a baax parce que en ce moment li ngeen di def nii neexul kenn li ngeen di def nii kenn rafetlu wu ko kon bàyyi leen xel bu baax a baax ñi topp seen ginnaaw ñi ngi bëggee ñëpp di kontaanee ñëpp di wax ni loolu lañ leen indiloon Maguette Seck la woon gis ngeen fu mu jaar day neex waaye Fallou taal moo koy yëngal joo moom moo nekk ci cadrage bi bëgg naa ñëpp di leen kontaanee jaajëf gars yi